Mor Seye. waaw ñaw bi moom période bi moom metti na moom mais nag dëkk bi aj na dëkk bi moom metti na mais nag sant yàlla daal. waaw client moom ñu ngi ñëw wax dëgg yàlla bu ñu waxee ñëw ñu dañu war ñoo ngi sant daal wax dëgg yàlla tane na ndax nit moom looy def rek di ci di jaam dara rek santal yàlla ndax am na ñoo xamante ne tamit dëkk bi metti na mais ñu ngi jéem a taxale di ñëw. waaw ñaw sant moom moom boo xoolee julli ji moom moo gën a bari ak ñawu xale loolu moom moo gën a bari góor ñi moom mag ñi moom presque boo xoolee ñoom xale yi rek lañuy la ñuy defaral ak jigéen ñi loolu moom moo gën a bari si korité tabaski moom mooy mooy gën a nekk ay ñaw mag ak yooyu mais bu dee korité man moom boo ñëwee bu ma xoolee ne mënuma ko moom dama la delloo même sax su fekkee sama client nga boo xamante ne bii sës nga ji man dinaa waxtaan ak yow daal expliqué la xamal la ne lii nañ bàyyi tamit ndax jël ñaw nit ñawoo ko mu mer la nga bañ a jël ñaawam mu nga bañ a jël mu mere la moo gën c'est parce que tamit nit ki boo mu waroo mën a jël yére ba pare ñawoo loolu moom day indi yàqoo rek te lii du dara lii temps bu gàtt la liggéey bu gàtt la nit dina la mere mais su demee ba toog après dana comprendre xam ne yow bëgg nga ko liggéeyal mais tamit temps bi moo gàtt korite moom ay fan la te liggéey continuer moom du ay fan korite ay fan la kon nag loo si def nay lu rafet waaw saa yi moom ñoo ñooy guddee ñooy guddee Ibrahima Faye ah, waaw ñoo ngi ci di góorgóorlu rek waaw mu ngi ñëw client yaa ngi ñëw tuuti waaw man nag lu may gën di ñëw ay ndoket ay marinière ay deux su góor yeeg yooyu waaw damay ñëw yëpp non nag lu may jël lu bari comme mag laa man fi nekk ni mun naa la wax ne bi ma arrêté jël ñaw mat na 15 jours moo ma jël benn ñaw parce que dama jël lu yem loo xam ne wóor na ma ne dinaa ko mën ñaw waaw te maa ngi am yaakaar na tamit lépp li ma jël lépp dina pare ñu ngi ñëw parce que ñëw bi mooy comme clients yi ñëw nañu ba nga arrêté leen sant yàlla la. ak jërëjëf.